mais ci ben côté mën nañu wax ni Macky est tombé dans le piège de Sonko parce que parce waa Pastef li leen bëggoon Pastef ñu won xaar 2024 dafa sori ci ñom parce que dañoo nam kanam kun wax na ko sànq nee na ba ñu Macky Sall ba ko wara a ba ñu waroon ci ay affaire am dafa gars yi da ngeen di étudier Pastef bu ñu sañoon Macky du eggali mandam parce que xam nañ ne boudé élection rek ñu gagné Macky Sall Pastef boudé élection élection ñu gagner Macky Sall Macky Sall il est très intelligent ay ay ay ay référendum la indil ay dialogue national la lay indil ay dàq élection la lay indil bu dee loolu kenn mënu ko ci foofu nag Macky foofu la ko waroon jàpp Macky foofu rek la ko waroon jàpp Sonko musul nekk danger ci Macky il n'a jamais été un bu doon danger la deux ans muy dem ci salon ñoom dinañ ko yëkk mais ñoom suivre ñu Sonko kuy génn sans garde du corps neuf heures ci guddi ñoom musuñu suivre Sonko Abdou xale bi moo dem di wax bu xale bi waxuloon toog naan maay maa aak Sonko maa ak Sonko maay maase Sonko bu ko waxuloon si di Ahmed du ko yëg ba di ko wax xaw ma nijaayam la ko wax Maodo Malick bu nekk boobu benn yaakaar xëy na tamit xaw ma ndax moom it dem wax ko keneen bu xale bi waxuloon ñoom Macky tàlluñu woon Sonko parce que Sonko musul nekk un danger mais à part léegi nag ñoom.

moom ñëpp xam nañ ne day day day tàngal day tax patriote yi gën a génn maître El Hadj Diouf arrangé wul Macky mais ma maître El Hadj Diouf faalewul Macky Sall mais maître El Hadj dafay gën a yokk affaire bi ñëpp ciy wax Maty trois pommes euh, euh, euh, activistes yëpp a ngi wax télévision yi ñoom Ahmed Aïdara mu jaral leen ñu jël seen oto dem ba ci village yi lu tax parce que Papa Alé Niang fexe na ba am PV yi comme Papa Alé am na PV Ahmed Aïdara na moom it ah saa yi bu ñu def ndànk saa yi dinañu suul ñoom tam ñuy dem fexe ba interview bi xale fi mu nekk am na ñeneen ñu ngi calculer lan la ñu war a def léegi nga gis keneen dem village xale bi xam nga wala nga jékki ñu génn la chaque jour day am ay rebondissement mais lii nag day gën a dooleel Sonko France 24 di tudd Sonko adduna bi yëpp di tudd Sonko Jeune Afrique léegi nga gis ñu génn benn journal sonko Sonko ma Macky a créé un monstre est-ce qu'il va tout faire pour détruire ce monstre ce monstre bien sûr il va le faire mais comment il va le faire c'est ça la question mais s'il ne fait pas attention ça peut lui exploser à la face c'est ça le danger bon bon dede, Ablaye Wad, Ablaye Wad, ça va. Ablaye Wad, nit rek la pendant trois ans lu leer laa la wax xamul nax Sonko Sonko n'est pas fini de Sonko il n'est pas fini xam nga lan moy xam nga lan moy fini xam nga lan moy fini ci ci opposant ni ñu def Khalifa Sall ñu ñëw rek jàppale rek yobbu tëj la 3 ans 4 ans 5 ans nit ñi fàtte la Karim wad tëj la 3 ans jël la yobbu la Qatar loolu may fini mais ñu xex nga xex ñu jàppale yobbu la loolu c'est pas fini de loolu rek loolu da laa gën a jox doole Sonko buñ ko buñ bu defee force jàpp ko tëj ko xale yi génn toj toj dëkk bi loolu loolu il n'est pas fini de même boo ko reyee sax il n'est pas fini tu fais de lui un martyr gars attention am na nit ñoo xam ne Macky wax na ko am na nit ñoo xam ne boo leen jàppee xam nga yàlla des fois moom mooy moom mooy waxloo nit te sax du xam lu tax lu mu wax loola parce que Macky Sall dafa ne am na nit ñoo xam ne boo jàppee réew mi day tëj te Sonko loolu la wane réew mi day takk fi mu nekk c'est trop tard pour Macky pour pour pour faire le forcing il doit être patient s'il veut détruire Sonko il doit être patient li américain di wax take the L take the loss boo boo amee défaite da ngay nangu da nga am défaite Macky Sall dafa war a nangu ne dafa am défaite du du guerre bi nag benn bataay rek la comme ni mu ko waxee ay moom ay victoire rek lay rangle xëy na loolu tax mu am orgueil parce que Macky xamul défaite ba mu ñëwee ba léegi ay victoire rek la am ah ñoom victory victory vi vi vi vi vi vi rek mi ngi doog a am défaite mi ngi doog a am défaite léegi nag moom moo war a fair play ne ah am naa défaite te te sax loolu la def loolu la def parce que keroog forcé wul avec la gendarmerie waaye bu mu forcé ak ak kii bi na nangu d'après li Clédor wax France woo nañ ko ne ko saay nangul defet bi nangul defet bi waaw waaw moom fii moom <laughs> <laughs> il faut nga nangu il faut nga nangu defet parce que nag je vous comprends dañoo gis Sonko rek yaakaar ne ii oh taatu nee na wuy sama ndey wuy wuy daanu na a yaa yooyu Sonko taatu ne daanu na rek baak leen nday travail bi mais buñ doon ay professionnel dañ koy togg dañuy togg travail boo ñu koy togg ba mu ñor xomm nga xam ne bu buñ ko génnee Sonko ci boppam am nu muy demee sax moom mën a saay suturaal ma ma bàyyi bàyyi naa mais togguñu ko si di Ahmed c'est pas un professionnel du professionnel waaw ah, togguñu affaire bi voilà gars yi laaj bi loo laaj bi loolu la woon euh, kii nee na su ma coupé wu live bi du mën a dem <laughs> waaw waaw wax nga dëgg de xaaral ma coupé léegi suba tamit su bu fekkee ne am na événement événement yu bees temps yi moom damaa bëri matériel li moom mën a wax ci live bi dafa bëri xam naa dinaa defar live incha allah ça dépend ne non vidéo que vous avez vidéo mais je fa dara lo c'est nouveau hein. avant dernier vidéo il y a deux jours je fa rien de de de de spécial rien de nouveau je vous le dis je vous le j'ai rien vu de de spécial rien de nouveau parce que moi, danan la amna mais la exactement tamit lol tamit nit journaliste vous breaking news bu fi di non wax li, voilà gis nga pourquoi plainte ex bi kii daf ko commencé woon nettali euh, euh, Clédor commencé woon na ko expliquer mais journaliste bi moo ko laajul journaliste Sénégal 7 bi moo ko laajul mais Clédor dafa ne plainte ex bi leen moo ko waral leen moo ko waral a ah, dañuy def beneen vidéo dinaa ko seetaan kon waaw ah, d'accord gis nga plainte ex bi xam la moo ko waral Macron moo woo Macky France ne ko ñëwal parce que ba ñu taalee Auchan xam nga Auchan ak France ko moom Total France moom ci leen ko woon nag na ko hey lii ngay gis nii boo moytuwul doo eggali sa mandat peuple bi dina jóg kon nag bu bind Sonko bul def defal contre x xam naa nag loolu mooy dossier bi bi yóbboo nga bàyyi mu sedd man noonu laa ko jàngee mais malheureusement journaliste bi laajul Clédor fin bi lan lan lan nga yaakaar ne mooy am est-ce que Macky dina day day bàyyi mu sedd wala day force mais Clédor Nord lu mu waxee daal affaire bi affaire bi Macky mën na jéem a jàpp ko je sa pas man daal je sais pas mais en tout cas ni Clédor waxee France ñoo wax Macky sal def ko x def ko x xaw ma nag waa France dañ ne ko kii il faut que ko mais doo ko nii man boo ma laajoon sama xel loolu la loolu laa leen wax su ma doon Macron xam ne laa wax Macky ah créé nga monstre créé nga monstre kii Si erreur tu as créé un monstre qui il faudra le détruire mais tu faut détruire l'église. Nous sommes en 2021. même si tu fekkee ne sax tu nga détruire 2023. Tu vingt détruire ça peut être détruit physiquement voilà, nous exilons. la voilà Nous exiler la Voilà, ñu jàppale ñu le mais du donnons l'église. parce que tu as créé une situation très explosive il faut que nga bàyyi mu sedd des loo sa ngor di di nga ci am tuuti ngor maanaam euh, immunité xam immunité mën na jël temps waaw jox nañ ko juge bi lu tax ñu jël juge bi lu tax affaire bi ñu nangu ko ci gendarmerie yóbbu ko ci juge <laughs> parce que boo ko yóbbu ci juge juge bi dina jël temps di wax nii def naa lii def ne comme 94 milliards yi rek comme plainte Mamour Diallo bi rek Mamour Diallo ba mu déposé plainte bi ko déposé plainte ñoom ñaar ñëpp lu at romb ñu nekk ko bii tamit noonu nañ ko dara def dañ ko dara jël rek nekk. mais nag loolu bu mu tax Sonko naagu ci suuf dinañ jéem a xool beneen façon buñ ko éliminer moo tax nag Sonko bu ju bu jógee ci victoire bi na def très ba deux mille vingt quatre bu mu génnati moom kese bu mu demee ci yenn milliers bu mu lekkati bu mu joxe ci deretam xaw ma day baax baax lu naan dem di may ay deret yooyu yëpp na ko bàyyi. voilà gars yi maa ngi coupé live parce que am na ñoo xam ne nañ su ma coupé wul duñ mën dem waaw léegi ku partagé wul euh, ñu def noonu ba suba kontaan naa ci yéen euh, waaw man moom affaire bi daf ma passionné trop trop trop ça ça me passionne je vous le sa temps yëpp moom ma occupé moom ma occupé bu ma paree nii sax su ma reere ba pare rek damay nekkaat ci internet bi di seetaan activiste yi di seetaan show yi xam nga c'est c'est très passionnant parce que c'est notre pays waaw daan ju sax mi ngi fi <laughs> daan mi ngi fi euh, ak kan Papa Diagne mi ngi fi woon tey suba voilà Khady Sagna nag xuloo nañu woon sànq benn xuloo mais baalu naa ko mais daf maa mere liirul sama message mais dinañ dinañ juboo sama sama la nee naa ko Khady baal ma àq laa ko bind waaye bàyyil bàyyil Adams xaw ma nopp Adams xaw ma ah am na ay temps mu ne dafa nopp Adams de moo tax mu koy defaan ma ne ko bàyyil Adams da lay dugal moo Gates yii moo Gates fàtte nañ ko fàtte nañ Adam Adamo fàtte nañ moo Gates fàtte nañ Ouzin Keita naa ko def cent vingt minutes rek muy deux heures de temps fàtte nañ Ouzin Keita ñoom ñëpp fàtte nañ leen temps yi kay Sonko rek Sonko fi ne Pastef fi fees Sonko fi ne Pastef fi fees Sonko fi ne que Pastef fi fees Sonko Paste vives son copine que Paste vives man Mr Shaker man may sa njaago oh o oh. ma njaago Sonko ma njaago Sonko oh oh oh xeexu njaago oh oh oh du jeex oh oh oh fiileeg oh oh oh amuñu ndam oh oh oh soko we de oh oh oh laa jël njaago waaw dinaa way sonko way bu neex bi ñuy topp fii di ma wax nan danga Macky Sall ak yow Macky nga Macky nga Macky nga loolu moo ma booleel Adams ma ne man maay njaago sonko mu ne ma yow njaago Macky mais lool c'est une insulte loolu duma ko ma ko nangu du ma ko nangu dama ne nangu dogal bi bàyyi soxor bi bàyyi si subi Sonko fi ne bul ma wax ma kii bàyyi mag idi nangu dogal bi Sonko fi ne ma ne mag ki bëri bor Sonko moo ko yar Sonko mooy gor Sonko fi ne que kii dama ko dama ko kereel way ah vingt 2024 egg si nguuru mag ki jeex fii fal Sonko prési Sénégal neex Sonko fi ne

kon Khady Sagna attention Adams Khady attention Macky Sall dama ka mere dama ka mere parce que Macky dafa bëgg taal suñu rew te loolu duñ ko nangu duñu nangu mu taal suñu rew bëgg nañ ko lool man supporter nako pendant 2 ans et demi mais dafa dem ba nagu foko fekk mi ngi ñangal kanam gi ah dafa nagu na wacc wat bopam yalla na yalla delo wat xolam mu eggali liggéeyam li taxoon ñu ànd ak moom yàlla na yàlla defaraat xolam ba mu mel noonu defar Sénégal trois ans yi ci des joxe lenge yi dem bu bëggee ñibbisi ñibbisi comme du Diouf kenn du ko tëj kenn du ko def dara mais lépp lu mu def ci lu bon bu dee defa def lu bon tëj na Karim baal nañ ko ko baal nañ ko bu fekkee ne mën na changer mais bu changé wul mais nit ñi dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy réagir wax ji yëpp loolu la. parce que doo toog amoo liggéey am lekkatuloo naanuloo ba pare nag ñu bëgg laa noot tamit ñun ay sénégalais lañ ñu ñun duñu peuple bu faible boo xam ne Sénégal dafa bëri ay intellectuel quand même mënoo ñu dañuy dañoo gëm yàlla nag waaye gëm yàlla bi am na fu mu yem de boo demee ba amutoo lekk amutoo lona sa gëm ñun ñii ñoo nekk Amérique di mer te ñun lu bon bon ñu ngeeg dara suñu poos sëggam ñu ñoo nekk Amérique di mer te ñu ngeeg dara suñu poos ñu ñuy fay liggéey ñu def dara ñu ñuy fay kon waxatuma laak booy yi nga xam ne amuñu benn benn espoir am na boo yoo xam ne amuñu benn espoir dañuy yow duñu am daram du nekk seen poos billahi wallahi taala kon Macky doit se ressaisir quoi Macky doit se ressaisir voilà gars yi maa ngi tàggoo sama ba tey mais cette fois ci la c'est la bonne ku laygul laygal ku partagé wul partagé leen ba suba incha allah rabbi kontaan naa ci yéen trop jaajëf te ñoo bokk Sénégal vive le Sénégal vive les patriotes jaajëf.